c'est la référence. jaageen jëfati ngeen ñuy toppandi ci juróom-ñeent fukk yu tombal benn kaddu gi di àddoo fii ci Medina Baye ngeen ñuy teewloo ci ay gox yu wute te fësanti ko bokk yi dal leen ak jàmm ceetu xabaar yi ci kàllaamay kottu ci yàttal bu ngeen taaxirloo tuuti rek ma jukki leen li ci gën a fës bokk na ci li gën a fës ci xibaar yi lakk gu méttee métti nag moo daal di am rek ni ki démb ca marché central bu Kaolack ca xàll ba ñuy wax rue Dalwa gannaaw ba nga xamee ne nag ab camion bees moo fa daal di tàkk jëppeet waaye tamit nag daal di yóbbaale rek daanaka ñeent fukki million ki sunu ay koppar lu ni mel dance dikk léegi léegi ci biir ak xibaar yi wàllum aada ak cosaan itam nag daal di sooxe lool fii ci diwaan Kaolack ba tax na sax yenn ci artiste comédien yi di sàkku daal ci njiital ARCOS mu abal leen ndaxte nag nee nañu jafe-jafe yi bari na boole googi tamit ñoom njiit ya ca seen ak bopp rek la ñu nekk Daouda a daañu ko dégg ci biir judiciaire ak soxna Ndeye Fatou Cissé bu li lépp yemee mbokk yi daan ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram ak suñu gaynde yi nga xame ne nag qualifié nañu rek ca finalu coupe d' afrique des li ci yéene kaay yeeg Omar Cissé buñ ca noppee toftal ca wàccaayu poroxaan ak journalu tay bañe seen asalaamaaleykum dal leen ak jàmm Le journal Ngoné Ndiaye rek ci euh, waxukaay gi fego ce Codou Seck kenn me ci wàllu xarale gi kàddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo dal leen ak jàmm ci euh, xibaar yi dañu koy dooree nag ca tribunal grande instance euh, bu Kaolack ak audience des flagrants délits ni ki démb nag atte nañu fa rek ay dossiers yu bare bari am na ñu ñu bàyyi nag ci sursis waaye laay tamit nag ñu seetal leen ba ñu set wecc ak ñoo xamee ne nag daan nañu leen ay daan yu diis diis bokk na ca nag ab béykat bu ñu daal di daan ñetti ati kaso lu ni mel nag mi ngi aju woon rek ci mbiram yàmba leeral gi gi ak soxna Ndeye Fatou Cissé. bu ni mel la ca leer mooy ne prévenu bi di client wam gendarme yi dañu ko teg loxo fekk ci ak glacière boo xam ne kookee ma nga ko yoroon juróom-ñaari kilo drogue euh, la mu ca wax mooy ne dañu ko ko yóbbante woon te ki ko ko jox sax moom xam na ko bu baax euh, donte ni nag la ca biir te mu ko doon transporté maanaam yàmbaa yi xamul woon ne ma nga ca te gi kon maître El Hadji Malick Diouf ba muy def plaidoirie ne naam am na waaye nag fa ba sukkandiku ca mu ne ngir dëggal ne client wam bile di nduur da doon jaay yàmba ndax du dara loo xam ne nag mën naa màndargal li ni mel du kayit du ciseau du ay koppar mbaa yeneen ni jumtukaay yoo xam ne nag dañu koy faral di jàppeek ñi ñuy wooyee ay jaaykat te loolee mën naa tax mu ne ba bërëbu àtteekaay bi jàpp ne dañ ko ko yóbbante woon comme ni mu ko waxee te xamul woon lan moo ca nekk ndax drogue bi kenn defaru ko ni mu mel ko fekkee ak soppar ñi tuuma nag di la avocat ba doon sàkku maanaam ne client wam ma jàpp nañu ko waaye fekk rek ne dafa yore yàmba lu jiitu plaidoirie défense bi nag procureur ci réquisitoire am juróomi ati kaso la sàkk woon ni daan ci kaw prévenu bi nga xam ne ca laa jàkk tontu ya diggante mag tribunal ba dafa doon weddi tuuma ne gendarme yi dañu ko fekk muy seetaan làmb ci village bu ñu naan ngalaxayaay rek ñu dal ci kawam ñu ko fekkee te Tamba ji borom dafa daw mu ne tribunal mi nga xam ne nag gannaaw ba mu dégloo parti yëpp dafa dëggal ni kon prévenu bi dañu ko fekkee yàmba joo xam ne jaay walla may ay nit ñu koy jëfandikoo la ko doon doyee ca daan ba nag mu jibal euh, ñetti at yoo xam ne da koy tëdd démb ca audience TGI bu Kaolack boobee nag àtteekat yi càmbar nañu fa fanweeri dossier ka benn yoo xam ne ña nga ñeeloon ñeent fukki nit ca ñoom benn jigéen gënoon na caa fës ay nit yu bare seeni at toll ci ñaar fukk jàpp juróom fukki at taxaw nañu kon ca bërëbu àtteekaay boobee ngir li ni mel daanub fukki fan ak juróom tribunal ba jibal na ko jëmale ci ñi nga xam ne dañoo leen a tegoon loxo fekk nag ñoom ña nga doon jëfandikoo sinébar ca ñoom bokk na ci benn élève boo xam ne góor la classe terminale lay def ñeneen ña nga xam ne nag tribunal ba dafa dëggal ne ñoom dañu doon jaay ñetti at yoo xam ne dañu koy tëdd lañu jibal ci seen kaw leneen loo xam ne fasoon na démb ca audience su flagrant délit bu TGI bu Kaolack bu weesoo mbirum accident ba ci sax abus du confiance mooy loolee ñu dippee outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions wala sax refus d'homme tempéré loole nag la muy und mooy bañal takk der muy ci tali bi mbaa feneen di ak bañ goo xam ne nag dañu koy jaarale ci ay jëf mbaa sax wax bu ñagas wala bu teggi newut yooyee mbir nag ak seetlu wane ne kon na lu ñuy téere ji ci bërëbu àtteekaay bi. jaajëf soxna Ndeye Fatou Cissé ca boobule chronique judiciaire ap coow nag bu ñu doon nëpp nëppal ca Maka njaay moo daal di nag mujj àgg àgg rek ci li nga xamante ne moo di eh, ci penc mi ñaari wujj nag ñoo doon xeex ca la coow la daal di tàmbalee kenn ka nak ñu dóor ko ba damm ko ñi nga xamee ne nag fekkee nañu loole nag daal di dikk fii fay Alfayda indi ci ay seede kenn ca ñoom mi ngi ci micro Alioune Badara Diop. lañ jëm mu pare femme bi goro bi dem na voyage lu yàgg ba ñëw am vingt jours yëgul affaire bi mu demee yéen ci la ñëw nettali ko mu dem ci xale bu jigéen bi nga xam ne mooy ndaw su ko attaqué ba mu demee ba nga xamante ne bi booru timis nee mu sangu ba génn ci douche bi jëkkër ji ne ko boo tontonte sama yaay ma sa daal di saaga ndey hmm. ba si fayu foofu lañ ko dóoree ba gaañ ko biñ ko dóoree xeer day yóbbu ko ci mocckat bi mu ne dafa rëq après biñ ñëwaatee ñu ne tàng bi dafa nefi ñu dem passé ko rajo mu dam boobu ñaaw téef nag ñaax ko xamante ne bii defati nga ko ca dëkk ba sax ñu teg la ci yoon dëkk ba sax moo ci ñaan pour ñu def attention bañ ña dem gendarmerie may ñaax dëkk ci boppam képp ko fi defati na borom dëkk bi am nga xamante ne bii moo am dëgg jàppale ko ci dëggam googee bañ teg ki def ñaawteef yi ci yoon. Makka Njaay laa ne. kon maanaam su ma déggee maanaam diggante wujj foofu la problème ñoom yëpp famille la ñoom benn famille bi la problème bi wujj la wu ak jëkkër jotewut ak goro mu wujjam la loolu lay problème bi. ki ñu dem moom nu mu tudd. Asu Jóob la tudd. si Jóob jëkkër ji Ama Ndiaye. Euh, ki waral xeex bi am tamit. Ndeye Ndiaye. léegi yow lan ngay ñaax li nga xam ne mooy mbir mi ginnaaw bi amee pare lan kay li ma ci àddu mooy loolu rek. bu ëllëgatee. Hmm. pour en cas ñu bañ a lu mel nii. waaw na ba nett li ba ñaaw. surtout ci famille. bi moo ci ñaan jàmm. ay kontaan weesu fii. loolu nag laay wax ne na mu dakk na mujj tey. xamante ne bii defati nga lu mel noonu nañ la teg ci yoon. parce que yoon nekkalu fa kii nekkalu fa kee. ayee noonu dëkk bi mu bëgg a doxee noonu du sotti ku jóg rek def na la neex loolu jëmalewut kanam ab dëkk daa ci amoon lu may wax yi ci Alfayda FM 90 point 1 ña nga ca taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé ngeen ñuy teewloo ca xolu dëkk ba junjoon naa leen ko ab camion nag bu defoon dund rek ba daal di fees moo daal di takk jëppeet nag yóbbaale rek daanaka ñeent fukki million ci sunu ay koppar loolee nag mi ngi amee ca rue Dalwa ca marché central bu Kaolack lu ni mel daal di sëngeemloo commerçant yi ci at mu yees mile Cheikh Ababacar Dieng. atum 2022 dafay soog a tàmbali marché central bu Kaolack delluwaat na ci mananam ni ki démb safara saa ngi woon ci xàll wi ñu dëppee rue Dalwa camion bu gudd lool bu ñuy xayma ci vingt quatre mètres moo yeboon dund ba fees tàkk jëppét. waaw oto bi la oto bi moo lakk maanaam euh, waa ji dafa am lu mu doon génnee ci oto bi far am lu doon taar rek mu jàpp oto bi lakk. waaw vraiment doon na lakk bu méttee métti. dafa mel dafa yeb nii. waaw dafa yeb ay marchandises ay marchandises yu bëri la lépp. ay boissons ay produits daal bëri na daal maanaam ay millions daal ñoo fi lakk. lakk gi amee ci biir marché bi li police yi ak sapeur pompier yi commerçant doon xeex nag mooy yàlla bu mu law waaye ci mujjantal ga dafa mel ni lu ñëpp doon xalaata ko jege sax yóbbuwaale na leen laal na ci étage bi ñu lakk-lakk yu fa lakk daana maanaam daal li ma la xaymaa daal li li lakk daal bëri na trop lu ëpp ñeent fukki million ci alal moo lakk ba def doom Mouhamad Babou muy borom marchandise mi nekkoon ci camion bi te palaasam lakk moo ko wax waaw bagage bi man maa ko moom oto bi dafa jégg-jégg rek eh, taal man xaw ma lan moo ko taal oto bi Dakar la jógee dafa yóbbu ay ak meew yow loolu la yóbbu yeneen produit yi quoi ay vingt cinq ay trente millions loolu moo fi nekk maintenant xaalis Dakar la jóge bi dafa jege-jege rek taal xam nga ne lan moo ko indaal noonu oto bi dafa jege rek taal non oto bi dama ko luwe rek moom place bi am na lu ci biir ay quatre millions cinq six loolu moo lakk ci biir foofu yëpp euh, day dem quarante millions ay yooyu rek moom mii rafetlu taxawaayu sapeur pompier yi nekk ci Kaolack ndax ñaari indi a yegg si hit di fay safara si delloo na lépp ci yàlla nee na comme kenn deewu ci. su euh, produit yi macha allah depuis ñu woo na ñëw naa ci moom bu maa ngi sant yàlla alhamdulilah fekk me nit yi alhamdulilah deew ay rek moo yàq alal bu yàqee loolu du dara fekk me ci ngi sant yàlla baax a baax. Ridel waa nag moo di xàll wi gën a mag ci marché central bu Kaolack ay boromi doole hit ñoo fi ame place ndax ñoom ay grossiste lañu ñooy jaay borom bitig yi jaayaat ci koñ yi police nag ubbi na blanquette ci mbir ñu xam safara si lakk oto bi fu mu jugee. mi ngi noonu police yi itam nag daal di cay ubbi l'enquête Cheikh Babacar Dieng waaye nag ña nga xamante ne ñoo dëkkee ci xàll woowee ñoom itamit nag jot nañoo dund njàqare ak tiitaange boole kooku yàqule joxoon nañu itam nag baaraam yéex a ñëw sapeur pompier Abdou Diop la ñuy taataan ak Cheikh Babacar Dieng. parce que ñoo dëkk fii ci kaw nii premier étage dañoo toog ci salle bi benn instant di añ bu ñu añee pare juste man ma nekk sama nekk après sama soxna ne ma am potu lamb bi après mu jàpp kër gi instant boobu xale yi ñu ci saal bi ak maire bi léegi man si laa daw jël sama doom bu ndaw bi moment bi may génn tàkk bi commencé na ba dugg ci biir kër gi mais moment bi il génn sauver xale bi si laa génn xale bi daw sama soxna daw ak xale yi après maire bi nag moom moo desoon ci biir dafa tiit toog ci suuf escalier yi après tiitaay boobu jàpp ko mu yëg ci kaw bu génnoon day dee moom heure boobu mais heureusement dafa yëg ci plus de deux heures de temps on les appelle ñuy wax ne ñi ngi ñëw mais ils ne pas venus donc ça aussi c'est quelque chose déplorer parce que dès qu'on a senti qu'il y avait un on a appelé les sapeurs-pompiers tout le monde qui était là chacun a pris son téléphone a composé appelé donc je vois ni seen assistance dafa yéex trop dafa parce que cas yu mel nii parce que ñun ñun ñii man mi di waxee maay responsable kër gi maa fi nekk sama soxna samay rakk ak sama goro leen fu am na fi boobu lii rek moo dee tax mais ñu xaar fi ba lii tàkk kër gi instant bi fi lañ dëkk ñu ngi nii ba nga pare ngeen dugg ngeen xool filmer ko lépp tax ci kaw lépp tax donc jusqu'à présent nag man je sais pas d'où provient le feu xam ma origine bi parce que j'étais à l'intérieur damaa toog yaa rek dégg boum sama soxla ma am na luy xeeñ di tax effectivement j'ai senti ça après ma génn jël sama doom ndaw euh, waa sapeur yi tamit nag a

liggéey benn immeuble R plus 1 bi nga xamante ni usage mixte la en même temps dafa am ay cantine ci suuf mais ci kaw aussi dafa am ñu fa dëkk donc loolu nekkoon lu xamante lu xawoon important la donc loolu moo tax en très rapidement feu bi on a pu waaw effectivement yàqu-yàqu yi moom am na comme ni nga waxee bi camion mag la donc denrée yi important moo ci nekkoon donc immeuble bi aussi y encore également un magasin qui avait denrée boo xamante c'était important ak euh, habitation yi ne ci kaw mais comme j'ai yàqu-yàqu yi mënoon naa weesu lii parce que marché moom ku ko dégg rek xam ne béréb bu xaw a waar la dañuy xaw a rafetlu daal en tout cas taxawaay bi sàppa taxaw tout de suite euh, ça permis quand tout de suite ñu limiter feu bi te xam nañu marché moom feu bu amee rek mën naa nekk leneen comme yàlla dimbal nañu quand même pas très rapidement on a pu circonscrire euh, de créer ñëwaat rek euh, saa su saa yi ñu occasion bi moom comme ni nga ko dafa nekk benn endroit boo xamante lu xaw euh, la lépp lañ fay ko gën encore defaat attention parce que loo xamante lu ndaw la mën nañ ko mais mën naa jur loo xamante lu kenn mënta foogee comme li ñu gisee ni tout à l'heure li ko indi waa police dinañ leen ko wax mais peut boo demee mën a nekk lu ndaw la te tey gis nañu lu mu occasionné non seulement en matière de perte mais en un peu plus de vigilance nekkoon na loo xamante ne war nañ a éviter. yéen a point 1. ñu euh, daal di euh, wéy nag ci jukkim xabaar yi ba tey daal di àddu rek jëmee ci jafe-jafe yaaju ci wàllum njàng meek njàngale mi élèves yi nga xamee ne nag ñoo faree rek ci l'école privée yi ñoom nag génn nañu rek ci pataaral ga daal di ñaawlu seen i naataango yi nekkee ci public beek nañuy doxalee jëme ci grève yi ñoom nag nee nañu daal ñoo ca gën a euh, loru ndax nag payoor gi ba tax na sax ña ngay sàkku ci nguur gi mu bàyyi xel fànn wi Alioune Badara Diop ginnaaw njàqare gi ñu gis ci li nga xam ni mooy jàng ak jàngale fii ci diwaan bu Kaolack grève la ñaay ba tax na élèves yi nga xam ni ñu nekk ci école privée yi lee gën nañ seen kaaf àddu ci li nga xam ni mooy comportement yi ñuy gis ci élèves yi nekk ci école publique yi lee ndaxte ñoom dañuy fay seen xaalis ngir jàng kon kaw waruñ leen a benn yoon Khadija Sylla àdduna ci li mel. vraiment ñun sonn nañ trop si grève bi parce que mënu ma comprendre école privée ñoom seen yoon neewu ci parce que ñun weer bu dee dañuy fay suñu xaalis amuñ droit ñëw di solidarité mais tamit nañu may tuuti bu weer bu dee dañu fay suñu xaalis te loolu tamit dafa mel li pertement la aussi bu weer bu dee fa foog ñu fay xaalis ñu grève dañuy fay suñu xaalis ñàkk grève dañu fay suñu xaalis kon nañu bàyyi ñu jàng est-ce que ba dem jàng la ci privé bi waaw loolu ñoom la rek ba tey dañu xaw ñoom leen arrangé xarmati daal la ñu de donte mbir moomu lee lu leen neex benn yoon kii di El Hadji Gueye doon ab élève ci classe bu troisième fële ci CM bu Cofak moom moomu lee mu ngi wax ni élèves yi nekk ci école privée yi dañoo war a def solidarité jàppale

yàq suñu loolu jaadu danañ nag mu jàppale ñu jàng su normal année Ba di ab waajuru ndongo di joxoñ baaraamu li nga xam ni mooy état Sénégal mbir moomu lay ñum rek ñoo ko waral parce que dañoo war a respecté accords yi nga xam ni moom la ñu woon ak jàngalekat yi loolu état ko indi na fay jàngalekat yi normalement ñu dem jàngale ji suñ doomi jàngi xale li ñu ko am nañ ci droit parce que jàng bëgg a tari amul fen loolu lépp état njàngale bu sooxee ba tax na élèves yi lee ñu ngi ñaax ki nga xam ne mooy njiitu réew bi lee ñu jàppale leen ngir ñu mun a amaat jàngal jàngale ku mucc ayib rawatina fii ci diwaan bu kaw Kaolack. jaajëfal ko moom ba Badara Diop ma taataan yooyu la kaddu jogee nag ci wàllum njàng ak njàngale daal di tàbbi ci wàllu aada ak cosaan ak it lu ma leen digoon ñàkki financement wala subvention ñàkk jubluwaay ak njiit yu matul njiit loolee nag mooy la leen metti ñoom artiste comédien yu ndaw yi fare fii ci demul dikkul tàggatémbe na Cheikh Tidiane Diagne. wàllug aada ak cosaan dafa sooxe lool ci diwaanu Kaolack lu ni mel nag artistes yu ndaw yi nga xamante ne ñooy soog a jokk di yëngatu ci wàllug théâtre ñoo ko xamle ñu joxoñ ci baaraamu tuuma nag kuréel gi leen takkee di Arcos Daouda Ndiaye di kenn ci ñoom. Kaolack compagnie yu mu fi bëree bëree bëri bëri amul kenn koo xam ne ne mën ngaa yëkkati sa loxo nay Kaolack fii aar bi dem na fi amul sonn année amul lenn loo xam ne ni satisfaire na ko pour artiste Kaolack yi artiste Kaolack instant bi nii moo ngi ci sankum ndax Kébili moo nekkoon président parce que Kébili la ak sankum mais sankum moom lan def président ñoom comédiens yi fekk baax ci dëkkub mboose kumba jigéen bi di laaj koppar gi nga xamante ne nag dañu ko tekk ci ndodd kuréel gi nga xamante ne moo jiite artistes yi ñu ne nag lépp loo xamante ne jógee na ci nguur gi duñ ci gis dara financement buy jógee ci ministère affaires yooyu noonu nangam ak sangam waaw arcos lay jaar mais tamit terewul amul benn artiste boo xam ne ni mën ngaa taxaw ne man gis naa sama bopp Arcos ñun suñu coono lañ koy jëlee ndax dañuy wax keesu Arcos a ngi nii ñaar dërëm nekk ci keesu Arcos génnee neen temps génnee neen temps génnee neen par chaque jour loolu la ñu wax loo xam ne nii amul bopp amul genn daal man mënumaa moom moo ngi liggéey xeetu ndaje yu dul jeex di ay réunion ñu amal ko bu ci mujj barke démb la bu ñu sukkandekoo ci ay kàddu Daouda Ndiaye nee na nag njiitu Arcos du fa wax dara lu ajum ngooj waaw réunion yi dañ lay wax réunion réunion mais réunion bi buñ dikkee dañ naan leen waaw ñu jëte Arcos ñu leen rek raamee mooy ñu def compagnie par compagnie tey boo demoon Arcos Pikine Arcos Guédiawaye Ndar ñoom ñëpp avancé neen seeni doom yi dañuy tukki jógee si kaw di indi mais doomi kaw la kenn mos sa tukki ñoom indi woon na fi benn projet boo xam ne nii lu dee dee dee cinq personnes wala quatre personnes war nañ mën a tukki mais noonu la yàqoo financé sa xaalis dajale say passeport ba yaakaar na da dem mais gisoo noonu la yàqoo da mujj toogaat ci jamono jooju ñuy sàkku demub samp maire bu bees bu diwaanu Kaolack na gëstu bu baax wàll ka culture ci capitalu Saloum. muy ak ak yëglu Cheikh Tidiane Diagne des ba tey ak sa micro ñoom nag artistes comédiens yi nee nañu daal dundeewuñu seenu ko aar ndaxte nag dañuy amal ay programme ci centre culturel bu Kaolack waaye daanaka kenn du fa ñëw bokk ci liy sooxeel mbir mi donte ne sax ka fa jiite jàmbaar la Daouda Ndiaye ma ngay tontu laaju Cheikh Tidiane Diagne. centre culturel boobu noonu li problème bi ñun duñ fa tëgg spectacle mu am ay nit c'est luy problème bi dafa raglu amul lumière amul poids bu fa jaar amul dara fa jaar ndax centre culturel boobu noonu tey imagine aaru Kaolack nu mu toll képp wax ne damay tëgg ko ndax ba ma tëgg fii pourtant dama see dox dox bay bëgg a dee sa le bi suma koñ bi laa ko mujj defee léegi da bëgg kon ñu toxal centre non centre bi xam naa bu ñu ko mënoon a toxalal dugalal ñu ko ci voie yi dinañu gën a arranger waaw si biir vraiment centre bi man mii nga xam ne nii damay tëgg ay programme tey programme boo amoon centre culturel du ma wax suma njaboot dem fa ndax foofu amul sécurité police du fa daagu say tey boo fa dem def yaay jël say responsabilité waaw lépp lu fa xew yow la ñuy def yow la ñuy wax kon nag foofu du yoon ñu fee centre culturel ah man da foofu laa ko fekk waaye man gisuma si suma bopp dëgg fa yàlla ndax ruxee na danger na lumière sax problème la fa dafa lëndëm ba nga duggee biir centre culturel dafa lëndëm euh, ngeen gisee taxawaayam waaw moom vraiment mosoon naa kaa mais vraiment tamit moom tamit ku ñàkk ki ñaan la mooy soxna si maa nuyu léegi mos nañ see dox maa moom ak soxna ku naan fajjub vraiment moom dafa ne lépp luy aar loo xam ne ni soxla ngeen ko si man wala ngeen soxla ma ko si guddi mi bëccëg man taxu naa pour jàpp ci depuis ba mu fi ñëwee ba léegi nii centre culturel xaw na changé xaw na am benn taar boo xam ne ni ñu ngi ciy gis suñu bopp waaw bëgg nañ da président Serigne Mboup moom nga xam ne ni tey yàlla def na moom la yàlla teg si digg jal bi ñoo koy ñaan mu jàppale aaru Kaolack aaru Kaolack sooxe na kilifa yi nga xamee ne nag tabb nañu leen yees ci jongante yi ñu génn élection locale yooyee sax ndam yeeg ndam lekk fi mu féetee directeur de campagne bu coalition gox yu bees moom nag wax naag askan wi xamal leen ni itam nag rafetlu na rek doxalin bi ne naam sax nekkul ne ñoom ñoo gagné waaye terewul nag noppi nañoo liggéey ak ñëpp ngir njëriñal Kaolack ci projet yi nga xamee itam nag amee nañu ko Pape Simaxa ma ngay félicité Serigne Mboup ci micro Cheikh Tidiane Diagne lépp lu mun xew yaakaar naa Kaolack lañ bëgg mu gagné Kaolack lañ bëggoon mu changé ñu am suñu projet de société boo xam ne moom lañ doon jaay Kaolackois yi malheureusement les Kaolackois ont décidé autrement mooy choisir nañ ki nga xam ne moo nekk président Serigne Mboup di ko ñaanal di ko féliciter di ko encourager yéen bi oyof ci kawam mais ñun aussi en tant que ay Kaolackois en tant que ñi nga xam ne aussi candidat lañu woon ci élection yi passé am une partie de la population bu am confiance ci ñun ba jël seeni xob sànnil ñu ko ñooñu aussi duñ leen mës a tey la ñu gën a teg suñu tànk ci Kaolack tey gën a dëggal suñu bopp aussi ci Kaolack tey lañ gën mën a taxaw encore pour xeexal Kaolack ki nga xam ne moo fi toog lu ñu am ci xam-xam expérience ci expertise ak projet yi nga xam ne aussi Rose amoon na ko pare na pour teg ko ci table bi pour l'entrée de Kaolack ku ci def nag aussi naka su noonu ñun aussi dinañ taxaw ñu jàmbaarloog yow comme nañ ko doon defee nous sommes des sentinelles et que nous allons de Kaolack taxawaay bu taxawoon ci Kaolack mais population bi ñoo décidé. mais ni ngeen doon bàkkoo ci campagne bi kay moo tax may wax. waaw mais kuy dem ci élection kuy dem ci làmb da bàkku suñ la daanoo aussi bul mere kenn santal ñëpp gërëm ñëpp nga defaruwaat fas yéene aussi ci échéance yi ñëw nga samp sa ndënd rek loolu kese la donc ñun vraiment am nañ ci satisfaction parce que taxaw nañ wax nañ ak population bi sensibiliser nañ nit ñi am na ñu ñu gëm am na ñu gëm ñeneen di a décidé autrement votel nañ sëriñ massivement tey si mbetteel di am du ñun kenn moo mënoon gagné te yàlla sëriñ ko jox ñu ngi ko si aussi ñu xoolaat suñu bopp ñu defarwaat. mais waroon waaw mais xam nga élection yi nu mu demee quel que alpha ak lu mun a xew même su fekkoon ne benn nit moo ñu voteel kooku tey ñun war nañ ko ci sant gërëm ko ci dem nañ élection am plus de cinq cent et quelques voix c' est pas gratuit nit ku jël xoomam ça veut dire que y' a une partie de la population boo xam ne adopté nañ suñu programme. mais lépp jaar na ci yoon pour yéen. lépp jaar bi ñoo voté loolu ñun amuñ luñ ciy wax amuñ luñ ciy kii dul di santaat di gërëm la population Kaolack waa ci seen maturité. yéen a ngi déglu xibaar yi Alfayda FM 90.1 ak eh, ni ñu leen ko eh, waxee woon yegg si nañu nag ci ponk bi ñu jagleel rek wàccaayu màggaluk poroxaan màggaluk poroxaan googee nga xamee ne itam nag Kaolack sele yoon la ci ba tax na sax jamono ji wàccaay gi daal di tàmbali bu baax a baax waaye nag ci lu soxal soxna yeeg ñaaxe gi ak ni ñu war a royee soxla su sell soosé di maam Diarra Bousso Serigne Modou Mbacke àdduna ci ci micro Wali Maza Seck. waaw màggal gi moom ku ne poroxaan ne Kaolack ndax moom mooy wàccukaay bi nga xam ne waaye jóge da nga fi jaar yu bëree bëri sax dañ fi jaar noppalu ndax dafa ñu jóge day sori daanaka mën na ni nii màggale Poroxaan noonu lañ màggale fii ci Kaolack ndax bu dee ñun ñi nga xam ne fii dem ndax gan ñuy jaar ci kër gi di nemikonte ak kilifa yu fay jaar a dem Poroxaan moo tax daanaka màggal Poroxaan moom Poroxaan la ak Kaolack waaye tey suñuy wax màggalu soxna ku sa ak xale yu jigéen yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi ci dëkk bi loo xamante ni duñ na lëmbe nañ waaye nag royukaay boobu nan lañ mën a def ba roy soxna moom dañoo war a xam ne soxna jaara bëgg gi am na solo lool waaye liy jariñe ci soxna si dëgg-dëgg yi liy jariñul si dëgg-dëgg mooy fexee roy ci moom ndax mel ni moom yombut waaye ku ko roy mën ngaa raw sa morom royut kon nag soxna yi gën a góorgóorlu ci roy soxna jaar ci muur cër ak sàmm seen bopp xam ne jigéen carrière am yàggut te nettali ndax soxna si 33 la dund te amul benn taas tey nag da ngay gis jigéen ñoo xam ne na ñeen fukki daanaka jàppe boppam a def waaye a nekk ci

baax sàggan na ndax boo defee benn bu baax mu bind la fukk boo defee benn bu bon mu bind la benn tey xaar ma xam ne nga tuubam de muy ay alal ak ay a maa fa maa fa dàq maa a xees ak nangam nangam yooyu yëpp amul solo li am solo mooy jul bu duggee ci bàmmeelam la ma fay fekk loolu moo am solo kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ci wàllum góorgóorlu googee nag nañuy fuugloo bés baak taxawaay bi ci képp kenn ku nekk war a amal alaaji seeni sekk mi fi teewal xalif bi soññu na ci taalibe yi moom itam mi ngi ci micro Wali Maza Seck

mag ak ndaw sëriñ si yëpp ak imaam yi ak jàngalekat yi ak di ñaan nag ci màgg yàlla ak baax yonte barkeb sëñ di sant nag ñi nga xam ne ñoom la ma sëriñ bi booleel ci lépp loo xam ne lu yëngu lu jëm ci yoon wi la ñu mën lu mën a doon rek kon loolu nit ki bu la defee lu baax boo mënul day mën ko sant ñu ngi leen sant ñu ngi ñaan yàlla ànd bi yàlla bi seytaane benn wàll ñu ngi ñaan sa borom defal nu ci tawfeex defal nu ci ngëneen sëñ Moussa yoon ñu ngi lay sant bu baax Mbàkke ndax mënoon nga toog sa kër waaye nag lépp bëgg sëñ Tuubaa ak gëm ko ak fonk ko moo tax nga def ko kon moom itam mi nga xam ne moo tax nga def ko li nga xam ne moom la yor ci ngëneel yàlla bu la ci kenn appelé ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xabaaru faydu bi euh, faydu bi xabaaru faydu bi waajtaayu ka gàmmu ko tey bañ a seet nag xibaar yi ci gën a fës tey ji nag wàllum kaaraange la euh, ci la ñuy sooboo ko Cheikh Ababacar Dieng soobu aar. Bañes jox njukkal yi xayru xalqi laa ci xelal xëy moo de baa. jaajëf soxna si mbokk yi ni jaageen jëf ci déglu bi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu jagleel waajal gàmmu Taïba Niassène gu atum ren. Cheikh Babacar Dieng. li ci gën a fës tey jëlee dañuy waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllum karange ndax yëngu-yëngu yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci sous région bi waaye ku ne xew-xew njabootu cheikhul islam wax doomu aadama yu jóge ko ci bor bu nekk ngir wutal si ko ñu jox kàddu Iliman loo mooy président commission sécurité ci gàmmu ba mu njëkk a dellu si ci wàllum sécurité bi ni mu tëddee woon ci gàmmu Taïba gu mujj am ndax boon fàttale ko daaw gàmmu Taïba ne seen amul woon. daaw jéeg la gàmmu am benn jafe-jafe amul waaye nag ñu ngi séentu lu ëpp li ñu amoon ci daaw jéeg ci sécurité ci gàmmu gi gàmmu gi ren dimension dafa toll boo xamee ne dafa aajo sécurité dëgg ndax ci li ma jàpp mooy yaakaar naa Porokhane day gàmmu daaw jékki maa ngi ci jëlee ne war nañoo am sécurité bu doy ma di ko wax commandant gendarmerie bu Nioro mu jottali ko capitaine élément yi ñu indi woon duubalam war nañ ko mën a indi deuxièmement mooy waa Mérina maanaam sëriñ si am nañ fi ñaar fukki kër ak nanga yooyu yëpp dafa laaj ay éléments yu fa taxaw ndax mbooloo fay daje plus këri gan yi ak euh, fi gan yi dal am na ci yoo xam ni préparé nañ pour war faa yóbbu sécurité ndax gis nañ gàmmu gi la passé la moo tax ñu bëgg ren luñ doon def daal nañ léegi dañ daan leen laaj nangami élément léegi nag laajatuñ leen ko ndax ñoom xam nañ mbiri sécurité naka lay demee ba taxoon ñu wàcc ko ci seen loxo waaye ma di leen ñaax ren na leen sécurité bi lu luñ daan indi dañ ko war a multiplier par deux ndax alhamdulilah ñu ngi yaakaar mbooloo mu bëri. ren nag donte ne defaguñu ba léegi CRD bi mandargal waa caayu Gama Taïba ci njiital gouverneur càkkutéef yi nga xam ne comité bi ñu dénku organisation bi am na ko jëmale ko ci ndawi buur yi ci wàllum kaaraange moom nii la tëddee. waaw danañ ci waxtaan ak kilifa yi bi Abdourahmane yéen bu ñëwee dañ ci waxtaan ak ñoom ba nga xam ne dañ ko teg ci plan de circulation boo xam ne benn jafe-jafe dootu ci am ndax lu ne rek jàngat la lu passé rek boo dellusee mën caa am loo ci jàngat nañ ci loolu ci mbiri circulation beeg fi ñu war a baar ak yooyu yëpp en tout cas du sax sécurité bi ñoom ñoo ko baare woon ci seen sago c'est-à-dire ñun ñoo leen sant bu ñu leen santee nag bu ñu defee rëq-rëq am ca rek bu du beneen yoone ñu jéem ko rattraper pour rëq-rëq yooyu bañ tere yenn mbumbaay yu bëri rawatina jamonoy gàmm Taïba mayuñu sax benn pèlerin mu ñëw ba Taïba Niassène gi di fi taali cigarette di jéem a tux. waaw yooyu yëpp dana ci bokk ndax euh, dañ ko sant maire bi pour mu def ci benn arrêté boo xamee ne danañ koy jébal gendarmerie sécurité bi mbiri tëgg mi ak tux mi ak euh, ñiy def loxoor ñoo ñëpp daal dañ ci wax ak pour mu def ci benn arrêté jox ko autorité yi pour ñu xam ne loolu pays bi moo ko aaye waaw bal bi ñu xool Medina nañ ko xool Taïba Niassène Taïba Niassène nag sax dafa am benn affaire bu ci ne mooy bunt yi dafa bëri ba nga xamee ne moom ma ci hésité ci sécurité bi encore pour ñu weeye ci moom foofu la xaw a xam nga Médina moom yàlla mën naa xattee daanaka ëpp doole gi yëpp oto yi ñooy jógee ñi pont noir ñi yóg yoon yu mag yi ñëw waaye fii nag yoon yi dañoo jóge ci àll bi dañoo bëri ba fu nekk la nit di fële loolu moo tax ma hésité ci sécurité bi lii comité bi wax nii la ko it doole dëkk bi di dundee borom dëkku Taïba Niassène di xam ne ne barki démb rek sax am na fi ak jàppante ci ab xew gu fi amoon ñu bëggoon a def jàkkaarloo mii lañ mujj jàmmaar lool ba tëgg ma mujjul sotti kon lii lu ñu tere la ci tey bañ a seen gi bàyyi nes gane si àdduna dëkk bi bi ñu ñëw tey mooy dëkk bi nga xam ne fii la mu fonkoon ko lool daan fi ñëw def fi tool taalibe yi ñëw di béy ci tool bi buñ daan béy moom daf daan sax sol dalam topp yi ni ñuy béy nii di xool ni ñuy béy nga xam ko ñoroon lool waaw loolu daana ko def gàmmu gi nag biñ demee ba nga xam ne nag ñun ñu koy def ñun gone yi toll woon ci jamono joojo ñu nag nañ ko siixaleeg juddu baay bi ñu daatee ko foofu noonu alhamdulilah di ko def ay cotisation délégation yu jàpp bés bi nag looy wax gan yi ñëw war a ñëw Taïba ñi nga xam ne ñooy ñëw dañuy wax ne xuy si xootee bàyyi la bi Taïba jiitu ko fi ñëw rek na nga ànd ak yar ak teg yi te itam booy dugg ci dëkk bi am na yoo xam ne bëgguñ ko taal cigarette di tuxoo di def yeneen barki démb lañ xam naa da ngeen ko dégg ba ma demee di tas sabarga dama ne leen damaa dee si nag maa dikk pour dee waaw fii ngeen bëgg dëkk du fi am waaw ah, waaw waaye nag ñoom it man bi ma waxee mu doon teg yéen bu neex nag ci man ak lu waa dëkk bi yëpp nga ñun bëgguñ affaire yi sabar dalil mbokk yi ne Taïba seen ab commune la bokk ci arrondissement bu Paoskoto département bu Nioro région bu kawlax fii la Baye Niass gën a àdduna lu ñu mel tombe woon ci fukki fan ak juróom ci weeru rajab ci atum 1900 gàmmoo ren gi nag ñu ngi ci wàccaay li bu baax a baax xibaar yi fii leen ci yem di leen jaajëfal. xabaar yi bitim réew. ci euh, nañu ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi bi ci réew ba dara Diop ana foo koy dooree jërëjëf soxna Ngoné xibaaru bitim réew dañ koy door rek réew bi nga xam ne mooy Guinée Bissau àddu ci ki nga xam ne mooy njiitu réew bi di Umaro Sissoco Embaló ginnaaw bi mu amee ab toog waxtaan ak taskati xibaar yi mu ngi ñu xamal ni lii di tentative coup d'état bi nga xam ne moom lañ doon amal démb ci noonu lee moom mu ngi coincé woon ak ay ministre am mu ñu xamale ni ay doomu aadama yu bëri ñàkk nañ ci seen i bakkan ba tax na njiitu réew bi di Umaro Sissoco Embaló àdduna ci li ni mel ba wax nii ba tey xamaguñ ñen ñoo waral li ni mel xabaar yi bitim réew dem ba réew bu Burkina Faso àddu ci li nga xam ne mooy procès assassinat ki fi nekkoon njiitu réew bi di Thomas Sankara mu mel nii boobu boobule dañ ko dakkandi ba tax na avocat yi nga xam ne ñoo nekk ci partie civile bi ñu ngi doon demandé ñu dindi li ñu mel ngir kat ñu mun a xam boobu boobule fan la mujjee. xabaar yi. bitim réew France la ñuy dem wax ci Covid 19 ginnaaw bi ñu dindee yi nga xam ni mooy port de masque ci yenn lieu xam ne dañ ko doon aaye fi mu ne nii nag mun nañu wax ne port de masque yi doonatul obligation. situation foofu ci réew bu France rawatina yenn lieu public yoo nga xam ne dañ ko fa doon exiger wante tamit mën nañ wax ni télétravail bi nga xam ni dañ ko doon imposer foofu ci réew bu France dina na li ñu mel donte sax jàngoro bi mu ngi des ci réew mi wante situation boobu lay mu ngi wéy di dem ci réew bu France. bitim réew Canada la dem àddu ci li nga xam ni mooy doomu aadama yu bëri yoo xam ne nekk ci centre ville bu kanada wàccoon ci mbedd yi lay doon ñaxtu li nga xam ni mooy mesure yu ñu teg jëmale ko ci li nga xam ne mooy xeex ak jàngoro bi di Covid 19 donte sax gouvernement bi moom teg na ay daan jëmale ko ci li ni mel wante askan bi lee ñu ngi fippu ba léegi ba tax na ñenn ñoo xam ni dañoo defoon ay débordement maanaam ñi nga xam ne dañoo gàllu gauche jëmale ko ci li ni mel ñoo ñoo lu teg nañ leen loxo xabaar yi bitim réew xibaar bitim réew dañ koy jeexale ak réew bu Ukraine wante wax ci ki nga xam ni mooy président bu russe bi di Vladimir Poutine ginnaaw bi mu accusé réew bu États-Unis que crise bi nga xam ni moom la réew bu Ukraine nekk kenn tegu ko loolu ñoom ba tax na kat mu ngi ñaax askan bi lee ngir kan ñu jëm a toog waxtaan trouver entente jëmale ko ci li nga xam ni mooy crise bi nga xam ni mu ngi dal askanu Ukraine te mbir moomu lee mën na jàll ba ci li nga xam ni mooy l'armée bi lee jërëjëf soxna Ngoné foofu la ñuy yamandi ci li nga xam ni mooy xibaaru bitim réew yi bitim réew xabaaru tàggat yaram tàggat eh, yaram ndamal gaynde yi nag li ki démb rek yóbbu leen final gën a fës nag ci tàggat yaram ngekk Serigne Moussa Kane gannaaw ba mu la nuyoo ba noppi. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu mbokk auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram benn ponk la nag eh, jëm ci demi final bu njëkk Coupe d'Afrique des Nations démb la door nag eh, Sénégal nag daal di am ndam ci kanamu Burkina Faso ñetti bal ci benn ba jogante bi jeexee kii di Sadio Mané bi nga xamante ne nag def na match bu rëy la ñuy def nag mu nekk homme du match réaction bi rek ñu déglu Sadio Mané. savait que parce que waaw xam na ñu naroon woon nekk match bu yomb demi-finale Coupe d'Afrique des Nations la ñu jàkkaarloo woon nag ak équipe Burkina Faso bu baax mu indil ñu nag ay jafe-jafe waaye ñu téye ko foofu rek ñoo di moom bu dakkul dikk ci noonu ci la bunt yi tijjee ko ñu daal def li ñu war a def yaakaar naa ne ndam li moom euh, dañu ko mérité. international bi bokk ci staf technique bu équipe bu Sénégal di El Hadji Ousseynou Diouf moom it sànni na ay kàddoom ci jogante bi ba mu jeexee. mu ne da nga koy wan xoolal Sénégal ni ñu commencé tournoi bi gars yi di wax du woon sax critique c'est normal sénégalais dafa bëgg jeu bu rafet bi gars yi di wax au début yéen ñii gis naa leen man leen ñun dañuy monter en puissance bi mm-hmm. ma wax xale yi moo leen tournoi boo koy joué du rek da ngay ñëw ni nii da ngay ñëw def nank-nank comme ay escalier yooyu yéeg plus que ngay ngay yëg ak doole plus que ngay gën a àgg li may wax sénégalais yi rek mooy di leen jërëjëf di leen wax jaaraama di leen wax jàpp leen seen équipe et incha allah bu xooli nekk kii di Pape Matar Sarr rek nee na moom gént gu fréyku la daal di fubal li nga xam te ne moom mooy Coupe d'Afrique des Nations Pape tax Sarr ñu déglu ko ba léegi. joué kaan moom rêve la woon bu mag sax bu nekkoon si man donc si tey moom possibilité joué ko voilà heure bu ma amee euh, possibilité joué rek dama ko joué à a quoi après compliqué premier mi-temps bi mais après deuxième mi-temps bi grâce à bii ñu dugal xawoon nañu soulagé bu baax a baax il nous fallait ñu dugal benn bii nag pour que mu ubbeeku woon tuuti mais là. gànnaaw nee na moo dugal bal bi de. Ah, mooy mooy monsieur bii quoi donc man ay biiw beneen football kat bu def match bu rëy tamit di Bamba Dieng moom ba jogante bi jeexee moom nee na fu mu toll nii nag ñu ngi jëm ci final ku ñu am baax na ñoom pare nañu Bamba Dieng ñu déglu ko. kontaan rek kontaan parce que Sénégal yëpp li lañ doon xaar ñun tamit li lañ doon xaar et que depuis début travail nañ lu war a tax ñu yegg si donc sant yàlla bu baax daal. waaw kontaan rek parce que c'est mon daal man attaquant la donc njëkk ñëw sama xel mooy dugal ndax solo daal si yàlla daal

nga xamante ne jàppoon nañu ko dimanche ci bésu final bi nag daxal nañu ko indi ko samedi bu juróom-ñaari waxtu jotee ca stade Ahmadou Dio ba ma ngoog ba la ñaanalee kandaa yu jàmm ma gënoon a fas ci xibaaru tàggat jaram yi jaangeen jëf li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf li gën a fës ci yéene kaay yi El Hadji Seydina ahalaan bikum Sénégal moo jàpp Burkina Faso di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñetti bal ci benn allah ba tax info yéene kaay l'évidence du quotidien Vox Populi ak Les Échos ne Sénégal dem nañu final le quotidien na leen leeral leen ko ñaareelu final yu toftaloo lii yéene kaay na ko yow gën koo leeral bii mooy ñetteelu final Walfadjri yéene kaay na ko yow mën naa gën a leer 2002 la woon 2019 ak 2022 bi waaye final bi kon mooy su ñetteelu final ci ñetteelu final bi ñetti bii lañ ci dugal xanaa waaru ngeen record yi kaay na ko man li ma waar mooy ni gaynde yi footballé démb fa ñoo lekk waa Burkina xaw tut ñu ray leen tik tak carax-carax bii yee mel ni taw stade yéen a kaay ne gayndey ña nga jëm ci li nga xam ne moom lañ yàgg a gént mooy coupe d'Afrique le quotidien yéen a kaay na ko jege nañ ko de coupe bi enquête yéen a kaay ne gayndey fa ñoo wan a njàmbaar wan a jom wan a ful ak fayda moo tax ñu mbuqi burkina l'observateur ne waaye football a neex surtout booy am ndam nag stade yéen a kaay ne Sadio Mané oh la saajo du nit saajo fa xaay saajo fa mën a football saajo fa garaaw saajo fa mën a duut saajo fa mën a dugal Sadio daal ci gàttal démb moo doon patron équipe bi yow jàppal bi jongante bi jeexee mooy homme du match moo ci gën a xarañ source a ne Sadio Mané kenn du moom fa doon dicté gaaña ñuy def ah Sadio fay accéléré fa mën a daw kaar Sadio fa mën a duut fa mën a paas am dugalal ba pare moom it fa mën a dugal kon doomu bàmbali bi fa football match ba fa koo gañe fa koo xar fa koo toj kenn du moom ñu doon wax naan la muy def Liverpool di ko def Sénégal xanaa fi mu toll war nañoo noppi Dakar Times ne Sadio démb fa doon show 24 heures na ko ndaanaan pire mooy Sadio démb Sadio fa duut jox gànn gay na ko xam dugalal mu dugal Burkina bëgg a égaliser Sadio buddi fararari jàkkaarloo góol ba fa jàmbal ba mu jëg ca kaw caaxe lakk tubaab yi na fa ko pis lépp ca kaaya lu jiitu Abdou Diallo moo a lakk caax yi stade yéen ne waaye Aliou Cissé oh waneeti na boppam fa xarañ ak coach sin gagnant Aliou Cissé entraîneur bu mag bi ci stade yéen kaay nee na jege nañ coupe sama xale yi ay ndaanaan lañ ca Sud Quotidien nee na nag dem final rek de fa ñoo ñëw ngir gañ coupe bi Ba na leen seen final bi fa ngeen ko mérito fa ngeen a dëggal li FIFA wax ne Sénégal a a xarañ ci na yaakaar ne Sénégal nag xanaa ren jël coupe d'Afrique bi yéena naa leen ko de Henri Camara ne li amoon 2002 fi mu naa ko ci xale yi kàddoom yaa ngi ci l'Observateur Sadio Mané ci enquête yéen a kaay mel ni ku ko grand Henri gis nga final bii ñu dem nag suñ jëlul coupe ba loolu sero la ndax suñu waxantee dëgg Sénégal dem na final loolu du information di yàgg naa am li mësta am kay moo jël coupe bi te la Sénégal yëpp di xaar Cheikhou Kouyaté ne ñoo ko digoon Sénégalais yi ñaari na ko wax nga dëgg de te Sénégalais yëpp fi mu toll ni gisuñ lu mooy ko de fa koy foqar ñi fa ngeen di reyante ndax du yomb de li leer li leer Mamadou Niang nekkoon fi football kat ba mu wax ko ci info yéene kaay mooy ne démb bi senegal mbuqee fa yuuxu ba baatam ba dee li muy ñaan nag ay rakkam moo ñu concentré wu xam na yi fi jeexagut de njiit réew mi Macky Sall sargal na gaynde yi ci seen ndam lu rafet li ba pare ñaax leen ne faa bëgg ngeen dem ba jeex mànkoo andi coupe bi kàddoom yaa ngi ci info yéene kaay libération ne démb bi match bi jeexee é eh, Sénégal Dakar ak Kaolack ndangaan nag diiwaan yépp ci gàttal fu nekk ci réew mi askana fu ñoo génn mbooloo mbooloo mu bari ca mbedd ya kaw tali ya oto yaag jakartaaya mayo sénégal yi drapeau sénégal fees dell ca mbedd ya mbégte mu ko gën a kenn musu koo gis ba ci sax police yi wana neen seen mbégte ak njiitëram Macky Sall démb fa génn ca pale ba di wana mbégteem comme sénégalais yépp sénégalais yi doon critiquer nag Aliou Cissé ak équipe nationale bi Aliou Cissé nee na nangu naa seen critique yi te xam naa li ngeen ci jublu moo ñu gën defar te critique yooyu fa baax ci lu leer ba yegg ca nañ ñi na wote député yi législatif yi fanweeri fan ak benn ci weeru sulier ci lañ dañ koy amal njiit réew mi Macky Sall moo ko jàpp ni ki démb bés bi yéene kaay moo ñu ko xamal mu hëlbatiku moom Macky gën a dëggal na benn bokk yaakaar fa ñoo xam ndam lu yaatu ci élection locale yi ñuy wax naan fa ñoo mbuqi wala boog suñ doole fa deltu ginnaaw fa ñoo bëgg rek jaxase xelu askan wi waaye man Macky maa ñi ma àndal benn bokk yaakaar tey lañ gën a am doole ci réew mi ndax waxoon naa ko dëkk yi nga xam ne fa ñu faa mbuqi ñun musuñ koo gañe bi iñaanante leen doole lu ko mooy du baax de ki baax la wut nag moom ci wàllu politique nu mu nar a ah yi am yi élèves gu mag ma ca seen bopp ya féetal seen ëllëg ak gaz lacrymogène yi ñu leen di fettax 24 heures mel ni ko daan ko léegi mu jeex da ndax Macky Sall ma nas ay pexe ngir geraw yi dakk kàkkataar yéen a kaay ne Macky ak ñi àndal état bi fii la nekk mel ni ay kàkkataar di xoolaan ba geraw bi làmbaay ñaaw su ko defee ñu ñëw nekk médecin après la mort te su mort xasee ba am lu ñu doyeete médecin ña soxla médecin bu leen fajal seen réseau yu bon téléphone portable ya ak internet mooy fiire ko tëf gardien ba yëf yaa nga amee ca tool bi yàgg fanweeri million ak ay takkaayu or yóbbu nañ ko fa loolu de baaxut tribune yéene kaay ne faa leen di wax tooxi doona bu mag moo xam démb Sénégal yaw seetal ñaari góor jigéen ñoom la ñu bett ñu summeeku di def fu saay-saay ci ab jàkka biir jàkka ay yëf yaa nga amee ca Sicap Karak Libération dëggal xibaar bi ne ñaari góor jigéen ya kenn ka fanweeri at ak juróom-benn la am kenn ka am fukki at benn ka sant Jàllo nag moom presque sa jàkka jël dëkkoon ndekete góor jigéen la te biir jàkka ñu defee seen yu bon yooyu ne la ñu xum sax ci coupe d'Afrique bi néegu yàlla xam na ci réew mi di tere ngóor jigéen léegi nañ xool loi bi lan lay xàtte ci ñoom fañ leen di téye mujj bàyyi leen comme góor jigéen yi fi mës a jàpp ci réew mi wala boog lii dana tax ñu def ko crime lii fa ñaaw trop li ci euh, yéenekaay yi Choukran El Hadji euh, ponk boobee sax naka mooy ndax képp euh, xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi farawoon ci wàllum déglu gi jaajëfal Codou Seck kenn mi ci xarale gi ak it waa rédaction ci njàppandal gi waaye laata maa yëkkati jotaay bi ma fàttali rek li ci gënoon a fës bokkoon na ci li gën a fës ci xibaar yi ab lakk gu métti métti nag moo daal di am rek ni ki démb ca marché central bu Kaolack ca xàll ba ñuy wax rue Dalwa gannaaw ba nga xamante ne nag ab camion bu yeboon dund ba fees moo fa daal di tàkk jëppeet yóbbaale nag daanaka ñeent fukki million ci sunu ay ngeen ci Cheikh Babacar Dieng wàllum aada cosaan itam nag daal di sooxe lool rek fii ci diwaanu Kaolack ba tax na sax yenn ci artiste comédien yi di sàkku ci njiital Arcos mu abal leen ndaxte nee nañu daal jafe-jafe yi bari na boole googu tamit ñoom njiit yi ci seen ak bopp rek la ñu nekk amoon ngeen yaatal gi ak Cheikh Tidiane Diagne naka noonu itam nag amoon ngeen seen chronique judiciaire ak soxna Ndeye Fatou Cissé bi li lépp yembee tegoon nañ ci xabaaru bitim réew tàggat yaram ak li ci yéene Niassène ñaanal nañu leen mucc ak muccule jàmmi biir ak bi ci tawfiq ak taysir jàngeen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine